asalaamaaleykum wa rahmatu rabbil alamin mbokk yi ma ne ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm Maulana Cheikh Ibrahima Niass di wax ne xéewal bu la ko yàlla xéewalee da nga koy sant kon ñëpp nañ wax jërëjëfee Baye Niass xam ngeen ne ku jërëjëfal ku jara jërëjëfal la jar naa jërëjëfal ba pare jar naa jëfal teg ci jërëjëfal googu moo tax suñu yaay lay màgget ñan woote fii ñëpp gedd seen la li ñëw uy si ko dégg ñu bëggee Mawlana Cheikhul Islam radiyallahu anhu nan daan bëggee yonent yàlla Muhammad ci gàttal jotaayu Mawlana Cheikh Ibrahim ni ko miin di ko tàmbalee mooy alquran bàyyi nag moom léppam alquran la yéen ko gën a am solo naa ci doomam wala ci Mouhamadou Macky. am nga riwaaya moom fay wér. wala nga sàmm daal di déplacé. voilà ndax loolu la sanadu la mu ne bés dañ koo wax ne ko bàyyi yow xanaa mënoo lépp comme ni bàyyi di lébalee doomam nga ni nga lébal léegoo nekk. mais bàyyi ne tekk ba yaakaar ne ko lépp maa ko fi dàq di ndax alquran yëpp ay lépp la te lu yàlla bind maa ci dàq alquran radiyallahu anhu te loolu bu ko wéddi rek defal ñu gis ñu jël ci alquran kenn du ko def su ko defee kon dañuy jox rek xam nga ñun kër Mawlana Cheikh Ibrahim sang yi dañoo waroon a toog ñun taalibe yi ñuy def lépp waaye sang yi ñoo ñuy defal yu neex yi ñu jël kenn ci ñoom muy Seydi Alxaaji Abdallah Oudou Cheikh Tidiane dégg nga mi nga xam ne Chérif Alawi yii na mi nga xam ne Cheikh Ibrahima leen di dafa ne xayin bihi yafxaru kullu xayin asraaruhu qaidatun lil xay bàyyi lu ne la wax ci ñoom kon Seydi Chérif ñu jox ko fu mu nekkee ñu jox bi incha allah mu ubbil ñu alquran ji لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم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 loolu nag sharaf la teraanga beneen ci tudd bu ñuy wax Cheikh Abdoulaye Ndaw xam nañ ko borom këru si daay la dégg nga ko taalibe Mawlaay Cheikh Abdou Barham boobu Cheikh Ousmane Dieng Sall mi xam macha allah ñenn ci ñi ñuy tudd danañ leen jox kàddu incha allah Cheikh Baye Mourchid Fall suma soppe boobu xam fu mu dégg nga Zeyda Roqi Ibrahim Niass Zeyda Roqiya mu Cheikhul Islam Alaaji Ibrahima Niass radiyallahu anhu defe naa moom la bàyyam ne woon wal bintu kal ibni fakuni mahramaka lam takuni dégg nga yàlla yàlla gën a guddal faam lool te may ko wér Cheikh Ousmane Mbow al muqaddam Cheikh Aboubacar Ndiaye Sang Ndiaye min xam dégg nga ak Diop Baye ci ñi ko péré la bokk Cheikh Moustapha Sow Baye Cheikh Omar Foutiyou Faye Cheikh Abdoul Aziz Ndiaye Cheikh Abdoul Aziz Ndiaye ñoom laa doon wax léegi sama soppeye ala abda yi ala aziz yi ñoo ngi doon benn macha allah nga xam ne ñoom gaynde waar bi lañ dégg nga Baye Cheikh Tidiane Bitey Baye Saa Mbodj ak yaa Umu Mbodj ñooñu si ñu a jaalee bés bi ci lañ bokk xam naa ni ñuy def rek mooy Baye Diagne Salo nag moom Baye Diagne bés si moo ko fi teewal ñu ngi nii borom xam-xam bii nga xam ne si Cheikh Tidiane dënn ba dañuy ñu nii yal na yàlla dëggal sa fan gis nañ liggéeyam yal na yàlla a ko bu baax ñun amul complexe surtout ñuy gis ngay liggéey ñu wax quoi ah. damay wax ne ñii liggéeyu Cheikh Tidiane nañ leen di tudd di leen di cité di leen di présenté bu baax ndax affaire bi liggéeyal bàyyi. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina mawlana muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah نعم المسيح واحضر لنا إلى المحضر واتعب فيه بنظرة تأتي لنا بالبصر الواحد جرجة باينس جرجة باينس jërëjëf Baye Niass ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm suñu sëriñ Mawlana Cheikh Tidiane ak ki nga xam ne mooy xalifa yonent bi di xalifa Cheikh Tidiane ala itlaa di Cheikh al Islam Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ñu ngi nuyu di ziara nga xam ne moo fi toog toogaayam si de ak mboolem njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim ñu teew fi ñu ngi nuyu di ziara itam njabootu Mawlana Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di dokkeel ñu ndokkeel itam suñu yaay yande mi nga xamante ne moo ngi may ñu fekkee gis bii ñu fekkee jotaay bi itam dégg nga ci ndigal suñu sëriñ ñu koy ñaanal yàlla yan yàlla fayante moom ci lu baax ci barke ba yàlla bi di wax eh, yaay ndey sëriñ bi moo ñu fi yebal Seydou Mawlaaya Baye Ousmane Dieng mu ne bëggoon na teewal boppam ndax yëg-yëg bi nga xam ne am nga ko ci moom ba boole ko ci jotaay bi waaye mu am ngànt mu yebal ma jiital ma ak mboolem njabootam yi nga xamante ne ñu ngi fii si Dakar eh, ci njiitalu Baye Modou Gueye ñoom Baye Moussa Diagne ak yu nekk fii rek ñoom ñëpp teew nañ mu ngi lay gërëm mu maa ngi fàttaliku keroog bi ma wax ne sëriñ bi laa ko tuddee da wax ne jubluwuma ci dara jublu rek taalibe Baye nañ nekk benn wax jooju wax ju rëy te bàyyi radiyallahu anhu dëgg-dëgg loolu rek la soxla itam ci njabootam te ñun njabootu Cheikh Baye may war nañ mën a xam loolu itam Baye wax na ne rajaa yi rafu sunnati lati rafu diini wa sunnati lati tajahala al aqwaamu min kulli qaryatin fa hal tajma'u al ayaamu qawma muhammadin ala nahjihi min duni shakkin wa miryatin radiyallahu anhu Baye mu ne sama yaakaar moo yëkkati diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala diine bi subhanahu wa taala ak mu ne ba dëkk bu nekk ñi réeree sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu xam ko ah ban bis ci bis si la yàlla di dajale ñenn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yoonam bi moom yonent bi dégg ci lu amul sikk beneen bay bi mu ne kenn la yàlla di dajale ñun yonent bi ci njubam gi mu ne ba nit denc jamante te njubu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn yorut kooku lu Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu wala dina wax ne Cheikh Ibrahima kooku yor na ko ndax bàyyi dafa wax ne ah, maa ngi ñaan yàlla daawtu rabbi an ya ummahati yàlla sama njub gii yàlla masal ko fu nekk ci àddina bi ba nit ñi di sant sama jëf te yéen ñëpp wala mboolem ku aju Cheikh xam nga liy njubu Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu te njubu Cheikh Ibrahima mooy lan seen jaamu yàlla yi def ci seen dënn yi yàlla kon lii yàlla doon wax ci alquran allahu waliyu ladina amanu yuxrijuhum mina zulumati ila nur feeñuwaay boobu Cheikh Ibrahima moom moo ñu ko feeñoo alhamdulilahi rabbil alamin yàlla ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm Baye Ousmane mu ngi lay yàlla yàlla yokku la yal yàlla taxawu la yal na yàlla barkeel sa liggéey ci zaahir ak ci baatin ci barkeel ci bi sallallahu alayhi ñu ngi jéggalu ci kàddu yi yëkkati bu amee njuumte allahumma salli ala sayyidina muhammadin ak qadri yow ma dara naa wii macha allah jazakallahu xeer rafet na lool ma ne ko rafet na lool itte ji nga xam ne yaa nday màgget ñan moom la nit ki di def mooy di jël muqaddami cheikhul islam yi di leen dajale ci benn place di leen tuddee programme bu dara nañ daje xoolante rek soppante ñu ñëpp ñu dégg kontaan bàyyi kontaan dañ ma nettali ne Cheikh Ibrahim dafa fekk doomam yi xaaxira ñuy jàng mu am dog yu mu leen def loo bañ pare mu ne leen kenn ku nekk na wax lu mucc ma garanti ko Mawlaay Cheikh Mouhamadou Lamine mii wakiilu daa ji moo ko ne bàyyi man gis ma itte mooy sa taalibe yëpp nekk dem itte jërëjëf wakiilu daa ji Mouhamadou Lamine Sarr ah! waaye ndeysaan wakiilu daa ji yal na yàlla yàggalal ñu ko bu baax a baax a baax a baax. Baye mooy daf leen a ñaan ñuy ay wàllu yàlla te kooku ñu ngi ci xëy mi. ku ne xam naa ko waxoon na Baye ñu waaw seen tomate si ñaan ak Baye ñu dégg maam ak mukk kooku moom mooy seen Baye moo leen ñaan ñu dégg ay wàllu nekk nañ ay wàllu a nañ ay udaba ay ulama ay fuqaha ñu ngi nii toog yàlla dimbale la nga toog ak ñoom. ñuy nooyi ci jaww ji ñu bàyyi yi Mawla maanaawu Baye yi ndax ñoom bu ñu ñuy xamoon lan mooy maanaa Muhammad waxul waxul man huwa Muhammad de maanaa Muhammad la wax waxul Muhammad jëriñu Abdoulaye ak ñoom doomu Abdoulaye déedéet maanaa Muhammad bu ko nit ñi xamoon day ko gën a màggal waaye bu ñu xamoon tamit maanaawu Cheikh Ibrahim Niass waxul Cheikh Ibrahim doomu ah, askan yaa ngi ko dee Alaaji Abdoulaye bi naam bu dee kooku sax mën naa am mu jaam it waaye ki nga xam ne moom moo xam ne. وتم قتل عندما ملوك العلب جميع رجال الغيب تحت قضائي وما قطعوا في الشرق والغرب فرفدا إلى مكة إلا لسم سزائي والإملاء وعين اليوم عين محمد سراسره في هيكل الورواري sama fat bu mat na maa ngi ci biir suuf kenn musta wax wax du mel noonu te ba bufta di wal kenn mënta wax wax du mel noonu te loolu teggin la moo tax mu ne boobu maa ngi ci biir suuf waaye moo xam fat xom ba muy mat boobu ñëwagul sax ci jamono ndax wax na lu gën a rëy loolu bëgg na yonent bi boobu dara amagul ina nii xamlal baraaya xubbu sirril jinaani te lu njëkk am ak baraaya du dara lu dul yàlla boobu la am di bëgg yonent bi kon loolu moo nekk ak dama fàtte yéen dama di doo dem màkk di xeeñtu di Seexu Tijaan ba Faas wala fële ca màkk ngay xeeñtu di yonent bi déedéet sama xet man li ngay xeeñtu ci bopp moo tax suñu see waxoon parce que la atayta maa nabi ak ñu mu sax ba balaa xam ne mbaa wa waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aleykum ñu ngi lay. jërëjëf Cheikh Mouhamadul Hadi. jërëjëf Cheikh Mouhamadul Hadi. Eh, ndeysaan gis nga ko man sax dimbale la ma ci lu bëri. ndeysaan jërëjëf. waaye Cheikh Baye yow la ñuy gërëm Cheikh Baye Hadi. ñu ngi lay gërëm la sant. ndax demande gi nga mu wax. jëriñ la gis nga man fu mu toll bu. sama toogaay bu gàtt gii li mu tuuti tuuti bu ñu joxee nit micro déggu ma turu baay ma nelaw fu ma toog waaw bu ma déggu baay rek ma nelaw fu ma toog léegi-léegi maanaam affaire bi la ñuy wax baay rek te bu sëriñ bi jëlee radiyallahu anhu da nga xam ne moom ci baay rek lay gàmm radiyallahu parce que lépp lu muy wax rek ci gàmmu baay moo ko wax ñu ngi lay sotta bi sunu sëriñ Mawlaay Cheikh Mahmoudul Haadi dégg nga man maa ngi dem rek te gis nga yi gars yi dundul macha allah mooy loolu ñu ngi lay tasagal bu baax tant bi li fi teew dafa foor kon sëriñ bi yow mooy xewoon maay gi nag dama ko dindi de ndax sëriñ bi moo ko maay gi ñëwal fi من قبلها طبت ببلاد وفي مصنع العلم حيث صلى وراءه ثم عبت بلاد لا بشر أنت ولا بواطن ولا علق ظل فلتركب السفينة وقد أنجم نصرا ولولا رقوب ورتل على الخليج مجة تجول بها ولست تحترق تنقل من صارم إلى رحم إلى مظالم ولا طبق حتى احتوى بيتك المؤمن من هدف عليها تأتها النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت نور الأفق فأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت نور الأفق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت نور الأفق ونحن بذاك الضياء في ونور السورة والشهاد نحترق اللهم إنا نسألك بجاه ممدحك والماتحك أن تعطي حظنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل الشتات من والكون لم تفعله أخلاقه علم مخلوق ثلاث وارما أثنى على أخلاق الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبقنا سراط الحق وآل إلى صراط المستقيم وعلى آله فتعبد في ذاتي بين جبل يلوح مصباحي جم تعقيب ومن كان أو ماذا يكون كأحمد العمل الحقيم كان للملحدين أغر علي بنبوة خاتم والله برهان يروح ويشهد وضم إلى اسم النبي لاسمه إذا قال بخمس مؤذن وشهد وشق له من اسمه ليجله فذو عرش محمود وعلى محمد تحبيبي ناقة الأدمع متجرا بقدرك القدر جاء ليلة ظلمي وفي عاطفي أوثاء بدته ما علم اللوم من كرمي إن رسول الله سيف يستطاع به مهند يسيوح لا يصبر وأبيض اليسس الغمام بيده سمع اليتامى اسمة الأرامل والنذب ولاكم من آل هاشم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 حيصوح الوداد سلمني ويمتحنا بما تعلق به حصل علينا فلن نتولى النعيم عيننا فمعناه فليس يرى للقلب البعد فيه غير منفحم الشمس تظهر للعين بورد صغيرة وتكيل لطرف الأمم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته غم يا متسل عن الظلم ثم قررني فيه أنه بشر أنه خير خلق الله كله من ذا الذي مساقت ومن له الحسنى فقط محمد الهادي الذي عليه من الهوت محمد بشر لا كالبشر قلبك الياقوت بين الحجر اللهم صل وسلم على من فاتيته الذي جاد ذات استهلال ومن خاتمته مراد محتمل الكمال اللهم صل على سيدنا محمد بحر انوارك ومعدن اسرارك ولسان حجتك وطراز ملكك وامام حضرتك وخزائن رحمتك وطري شريعتك المتلذذ بتوحيدك انسان الوجود وسبب كل موجود عين عيان خلق متعلم نور بيئك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون عنك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بعنا وعن والدنا وشيخنا وذرياتنا يا رب العالمين لسعادة من عزهم أقدامهم فوق الجباه إن لم أكن منهم فلي بحبهم عز وجاه وبجاههم وبعزهم هب لنا عاش الحياة واختم لنا بخيرها ما لنا من سواه جميعة ربيعي بمنحتي شفيعي بملتقى البديعي أقل يا مملي بمنحتي صلبي بملتقى البديعي أقل يا محمد يا ربنا صل على خير الأنام من على على السماوات العلا من رام العليم يا ربي بما أحكي سفلي بما تقي بدي أغلب محمدي أهلا بشعر المولد شر العلا والسندي شر النبي أحمد شر ربي الأولين يا ربي حق الصبي ربيعي إن ترك ربيعي لعظم شفيعي بكل خاط مضلي سمعت ربي بما أعطي سبي بما تقل بديعي بشار الفرحي شر ذهاب لطرحي وفخرنا ومرحي شر نبي الأفضل يا تبارك براتي سقيم بما تقلبني أقرب يا محمد شر الفلاح وسرور شر به سرده مرشح بين شهور متوجم كلنا يا ربي لما أتي سبيت وتقلى بديعي يا محمد على البشار فاتحي إغلق كون فاتحي نفص بالفواتح وخزخات من الليل يا ربي قاسم شر النبي قاسم وفاتح وخاتم واخر اول بمرحك سبيل بما تقلى وبالأفضل محمد أهلا بشال وصيل لحق شال الأمير دعوا بشال ظهير بكل واصل يقبل يا ربي

بشار سيدي يا أحمر وأسود من حل سق سددي واعتزال أسري بغرة سقي وقد كفى كلها عباها وكلها بقوله أنا لها عند سداد وجلي

محمد أهلا بشار المصطفى صفوة كل المصطفى وخير عبد قد صفى من ملك أو مرسل يا ربي إلى حق سبيل ومن أبدي محمد شهد الذي أثاره إله واختاره من حبه خيره عند القضاء لجله

محمدا أهلا بليل عشر في ويوم الأغر واطب ذلك السهر ونرجو في الجليل بما أتي سكت بما تقبل أهلا بكل مظهر من خالق يذكر في كراف البصر إلى مقام العلي يا تربي بما أتي سبيل بما تقبل محمد عبارات العجاب آمنة حين نصر سبابة ثم اقتلعت بسجة مبتهلة يا تربي بما أتي سبيل محمد كما تدل الزور كما ترى القصر في وحل القصر بصنم مجدد يا ربي بمن أتي سبيل بمن تقلب حبب محمد وعلت البحار وجفت الأنهار بجنه والنار وطفئات الخجل يا رب بمرحب سبيل وتقيامني حمدك يا العمل المنر الافضالي يا طليل جاري يا أفضل الليالي ببلد مفضل يا رب بما أتي سبيل بما تقيامني عليه أهلا بيوم العيد ما مثله من عيد قد حل في المولود في محل الزحل يا ترى بما أهلي سبيا بما تقرب ديري أقرب محمد سابع الولادة ومات وسادة مثل ما أراد إلهه

الحمد الأولين والآخرين وكان ذا يقينا من الكريم بفضل يا ربي بما أني سمعت بما تطيبني أخيرا محمد أنا اليوم الثاني مولد لسان اثنين وبعد السن الكوني وقدمي مبجلي شار العجم إلى شار الكرم أكرم بأرض الحرم ولد خير مصري سمعت ربي بما أتي سبي بما تقي غدي أغبي محمد أكرم يوم الصارى اشتنا واستنار لمن حوى البخارى مولة من زليل نبي بما أتي سبي بما تقيا بديوي حقيبا محمد أكرم بشاري سام مولد خير الإنسان قل ولآل إحسان وكامل مكمل سمعتنا به لما أدي سبيل بما تذلني أتمتي لآلي عدتي ليالي بزينة المعالي كجوهر مفصل سمعتنا به لما أدي سبيل وتقنا فللعقلنا محمد ثنيات ربيعي بمرحتي شفيعي بمنتقى البديعي أقل يا مرملي بمرحتي شفيعي بمنتقى البديعي أقل يا محمد أبغي بها الجمع به يوم وليل قوله وفضل حب ربه ومرضاه ومليء فيهدى ربه لما أتيس بها لما تقيا مليا أحبها وعملي وختمني بالحسنى واجعلي في الحسنى لدى المقام الأسنى مع رفيق الأفضل سيهدى ربي لما أتيس بها لما تقيا حبيبنا محمد وكلنا وليا وناصرا حفيا نعمة شيء قوية يا بك العليم يا بابي بما الحد سبيا بما التقيا مديح بها محمد صلى وسلم ليله عليه أفضل الصلاة لو كون الإله من أبد يزلي يا ربي بما أتي سبيا بما ترجع مديه أبد محمد وآله وصحبه وزوجه وحزبه وكل آل حبه مع السلام نكمل يا ربي

عجب دعاهم وعجب بالذي طلبوا بجاه أحمد ما صار خيرا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحمد لله ولا إله إلا أنت المستقيم ولا آه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 صلى الله عليه وسلم الذي بشر به أمم قبلنا وحصنا به وأرسلناك إلى رحمة للعالمين أنزله عليه وبلغنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين حصله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه الهادين المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ñu nuyu mbooloom yëpp bala ñoo guddal ndax waxtu yu gudd na te jotaay bi duñ ci yéene comme ni ko Cheikh Ahmad Dam waxee léegi bëri na lool bu suñu dañuy waxtaan xissa comme nu ko bàyyi doon defee ndax yéene boobu lañ amoon ci Seyda yaa nay Maguette Niang ñi nga xam ne mooy borom jotaay bi moo borom guddi gi doonte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko dàkkatal bés bi ñoo ko jàppal si bopp gannaaw boo ko jàppee moom ma a ko ah guddi yooyu yëpp am naa ci programme mu ne ma léegi seetal loolu day wane ne yéene ak cofeel la am ci ñun pour ñu taxaw guddi gi moo tax ci nit ñi laa xoote na ndax pare ngeen pour ma ñëw ngir mën a ñëw waxtaan xissa comme nu ko suñu waajur Cheikh Mamadou Hadj Lalla defee waaye nag bu ci xajee ñoo ko ci def waaye taw na dina nuyoo ziara surtout ma ki nga xam ne mooy si njaati bi muy monsieur le maire ndax man ci koñ bi laa dëkk ci quartier laa nekk lu ëpp fukki fi ba lu ko wax lool ko naa wax ci ay kàddoom xamu ko sax baaxam ak bëgg lu baaxam moo tax ak yéene bu rafet bi nga xam ne am na ko taalibe yi pour ñu taataan ci ci guddi gii ak moom tamit mu taataan waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaane ay siiram ndax bàyyi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaane ay mbiram solo ndax yàlla moo ko nettali ay xibaar yi yonent yi ko jiitu woon ndax yàlla wax solo xam ne wa kullan naqussu alayka min anbaa'i rusuli maa nusaddiqu bihi fu'aadak dinaa la nettali xibaar yi yonent yi la lan ngir sa gën a ragal yàlla ngir gën a bëgg yàlla comment baalu nax na nag ay ma ñun nag bu ñuy waxtaanee séeréer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala waxtaanee bàyyi ndax bàyyi mooy jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko maalik ki ñu waxee léegi ndax bàyyi moo ñu wax ne maa al xaqi xaalatu amini ka xaalati maa al mustafa al muxtaari nuru nawaatili yuwaxiduhu wal xaq yuhdi salaatahu alayhi wa ubdi naxwahu bi malaaya mu ne ni yonent bi mel yàlla man noonu laa mel ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk xam na nu mel yàlla yonent bi dafay jaamu yàlla bañ kaa sàkkal bokkaale yàlla nu mel ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafay julli si yonent bi sallallahu alayhi wa ne amul dagg du jeex pare soog ñoo wax ne julli ay malaakam wax mbindeef yi ne julli si yonent bi sallallahu moo tax entre lii maalif bi doon wax léegi mooy oustaz Lam Diagne nga xam ne macha allah gàmm na gàmm bi ci waxtaan ak ci joxe li nga xam ne mu ko doon joxe kàddu yi mu lool yàlla dafa la ko si tawfiq ba dëgg dëgg gàmm na gàmm ndax lan bàyyi moo waxoon doomam alxaj abdullahi na ko mën mawlud yaa waladi illaa seenu tataxalalu amdaa nekkul lenn lu dul waxtaanee lenn si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay séeram ay jaar-jaaram ba pare boole koog sikar ba mu dëgg dëgg gàmmu am na ba pare gannaaw dañu baaxantale moo moo tax ma ne bàyyi mu ne nu yonent moom la mel ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nu mel ak yàlla yonent bi dafay jaamu yàlla bañ kaa sàkkal bokkaale yàlla nu mel ak yonent bi sallallahu man damay tagg yonent bi sallallahu alayhi wa tagg boo xam ne du jeex mukk kenn ku nekk am nga sa Leyla am nga sa Saada am nga sa xarit am nga sa soppe am nga sa doom boo bëgg boo xam ne moom ngay wétlu ko moom nga sopp moom nga àndal waaye mu ne moom yàlla daf na xolam bi kenn amu ci xas ku dul Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ne wax ne ne kullu Leyla wa barham salam da ahmada xayri naasi ani bahaari wa min xasani yi wa innii ubarrizu aqraani aw anasbaari dem ba ne wa innii abdullahi atlubu kitaabahu waccan bi rasulillahi darawu xabiir mu ne man bàyyi gisuma keneen ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa keneen ku gis leneen rek jëlal ndax yow lépp looy ut lépp looy ut ci keneen rek boo ñëwee ci jëmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekkee na taar ngay boo ñëwee ci jëmm yonent bi sallallahu alayhi wa fekk ndax mooy aynul bahaa yi fekkee na askan ngay ut boo ñëwee ci mooy xeyrul naas yi moo gën ci mbindeef fekkee ne alal ngay wut lépp lu yàlla di séddale mu ko jaaree ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax wax ne ne allahu wal moom koy baanal passé yàlla mooy joxe waaye man maay séddale ba lépp lu bàyyi ko ci magasin yàlla rek mu ko jaaree ci buntu yonent bi sa alayhi wa képp ku bëgg a am foofu ngay amee képp ku bëgg a raw foofu ngay rawee moo tax bàyyi mu ne sama mbir yépp dama ko jëmbal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam samay cër samay doom ba samay taalibe dama leen jëmbal bi sallallahu alayhi wa ñaanu lii continuer sama gannaaw moo tax yàlla may ñu toog fépp ba ñu ko fekkee yàgg ko fekk day yu fasanti ko ba ñu ngi ndokkeel monsieur damay xaatir di Sénégal bi ñu yeewu fi ne kenn mënoon leen a wax surtout ma képp yàlla may ci élection yi passé nga am beneen mandat ku fi am ñaari mandat rek wala ñetti mandat rek dafa fekk na liggéey nga ba dee ku liggéeyul nit ñi ñoo gën a am bopp kenn mënu leen la liggéey rek mooy tax nga gañe bon dëgg-dëgg na ngaa liggéey moo tax ñu falaat la bon ñu ngi lay ndokkeel di lay ñaanal ministère bi nga xam ne am nga ko fii ci Grand Yoff ak mébét na yàlla may ci ndam may ci tawfiq di jaay si sallallahu alayhi wa sallam am neen mbégte lool musuma toog ak yow musuma laa gis waaye dañuy wax ne nopp amul kubéer lépp loo def nit ñi dina ko yëg dina ko xam moo tax lépp loo fi def fii ci Grand Yoff wala nga def ko ci Dakar wala nga def ko ci taalibe yi yëg neen ko xam neen ko ngi lay ñaanal yàlla yàlla mi am fay yàlla na yàlla fay la dëgg-dëgg bu ñàkk jot nga wala neexoon na am naa ngant seede yàlla konoon dina la ko nangul waaye nga bàyyi si lépp ñëw toog te bu may njëkk a nuyoonte yow Aziz di taale ma njëkk a wax ne yàlla mi mbokk la mbokk la bon dëgg-dëgg ku lay la ku lay dimbale gàmm la yow képp ku la nga dimbale ndax euh, mbir mi dafa yaatu lool mbiri bàyyi dafa yaatu lool ci képp koo jàpp rek si bàyyi soldaaram te ku ne xam ne ne Aziz bi soldaaru Baye Tuuti la te soldaaru Baye Tuuti mooy soldaaru Mawlana Cheikh Islam Hadji Malick Sy di ñaanal Baye Tuuti yàlla yàlla yokk leeram taas yi ci barkeem duñ ko fàtte mukk ndax géew yu mel nii yàgg nañ ko fekk ñu yàgg ñaax yàgg ñoo ñaanal yàgg ñoo tajdiya ba dëgg-dëgg lii rek la doon xencu amul sikki sàkk ne yàlla dina ko fay bépp ngeneen boo xam ne ne daan na ko def guddi yi euh, ibnu qayim dafay wax ne man araada allahu bi ibaadihi xayran sahala lahu lisaana salaat ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ne yàlla bi dëgg dëgg dëgg daf ne daf koy yombalal tamit muy nekk ci yu mel nii nekk xam xayaat yëpp daf ko ci yi nga xam ne la dëgër mooy yoon yàlla te ku rawoon foo nga roye maam alxaaj abdullah bi nga xam ne moom la doon tuddi léegi centenaire am ci leen ne moom alxaaj moom ak seen maam alxaaj Malick radiallahu anhu maam amin yal na yàlla ko seen leer taas alxaaj abdullahi moo gaañu àllarba maam alxaaj Malick Sy gaañu talaata ñuy feetoo seen centenaire muy ñaan ñoo xam ne ne lu ñu liggéey ci diine yi lu ñu liggéey ci tariqa bi lu ñu liggéey ci lislaam lu ñu liggéey ci Sénégal kenn ñuy feetoo seen centenaire ñu leen ji tudd dañuy fàttaliku di leen daal na maa ci ñaan yàlla yàlla yàlla taas seen barke mi nga xam ne moom ma doon waxtaanee léegi ku nekk xam na ne mu jaxit la woon ku nekk xamoon ne ku ñàkk jot la ndax baykat la woon daaw dundoo ak daaw dundee addiya lépp lu ñu ko jox ci àddina daf koy ber ndax ñu xam ne loolu lañ liggéey waaye tamit daf daan liggéey daf daan jàngale daf daan julli waxtu julli juróom daan lal dal si bi daan def si bon ku nekk xam na ne journéem chargé na loolu xam na loolu ànd ak loolu yépp ku nekk xam na ne bët bu set mu ne dinaa julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa quarante mille fois muy ñeent fukki junne salaat faati waxuma salaat ala nabi de waxuma allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim gàtt na lool waaye tiyaaba bu nekkam ci waaye moom bët du set dina julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci salaatul faatiha quarante mille fois muy ñeent fukki junni salaatul faatiha ànd ak lu muy xat yépp ci journée bi dam tool lal dar sa tafsir nekk ci njaboot yi lu ne waaye ànd ak loolu lépp yàlla mooy dox ndax bàyyi moo ñu xamal ne képp ku raw foofu nga rawee hmm. ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga rawee moo ne alayhi salaatullahi duma salaamuhu bi kasrati taslimi alal Mustafa Fuxtu képp ku raw rek mu ne mu nga rawee ci julli Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu man bàyyi képp ku ma raw rek maa ngi ci julli Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yàlla moo ñu ko sant yàlla sant ñu lenn loo xam ne moo ñu ci jiitu lu dul julli Yonent bi sallallahu alayhi a ndax inna allah tabaraka wa taala amara naa bi salaati wala ñu salli amara naa bi zakaati wala ñu zakki amara naa bil hajji wala amar naa bi sobo la muy sum walakin allah salla ala rasul sallam yàlla digal nañ ne julli te mosoo dégg fi yàlla di jullee digal nañ or mosoo dégg fi yàlla di ooree digal nañ ñu joxe asaka mosoo dégg ne yàlla ngi joxe asaka digal nañ aj te mosoo dégg fi yàlla di ajee waaye digal nañu loo xam ne moo ñu ci jiitu moom yàlla mooy inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuhan naamu sallu alayhi wa sallimu taslima moo tax bàyyi di wax ci xutba ñaareelam ci ajuma alhamdulilahi alladi amarana bittaqwa wabtigaa il wasila mu ne waxaddana ala talabi darajati rafiati lawal fadila mu ne amarana amran muy première amarana amran bada ak bi nafsi mu ne digal nañu loo xam ne moo ci jiitu ñaareel bi digle bi mooy wa thanna bil malaikati qudsi mu digal malaaka yi nañ julli seen bi sallallahu alayhi wa sallam ñetteel bi mooy wa thanna muminina min jinnihi wa insi mu digal jinne yi ak nit ñi nañ julli Yonent bi sallallahu ñu xamee ne secret bi foofu la julli Yonent bi te julli boobu ñuy julli Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa naarifu kayfa nusalli ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam donte ñu ngi julli Yonent na la ñuy julli Yonent bi ndax booy julli Yonent bi looy looy wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam yow yàlla yàlla nga julli Yonent bi sallallahu wa sallam waxoo ana usalli ala rasulillah waxoo man mooy sa wajur bu jigéen ah macha allah ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar yal na yàlla guddal fan yi te may wér ñu ngi bëgg lool ci seen teewaay ñaan ñu ngi ndokkeel bu baax jotaay bi may kuus balaa maa ñëw njaboot maam Cheikh Ibra bi nga xam ne ñoo fi nekk te ñoom laa waroon jiital ci nuyoo bi ak ziara bi waaye ñu ma jiitu. nuyu na leen ziar muy ñaari Baay Faal yi nga xam ne ñoo fi ndax njaboot si maam Cheikh Ibra Fall ku nekk xam na ne ay jëmmi leer leen ay jëmmi taar leen ku nekk xam na ne seen waajur lim nandal ci fay i ci ay ab paaf kenn xamul tool man de bëri na ma ko kenn waxul sax Cheikh Mamadou Hadi ko amoon cër la ci maam Cheikh Ibra Fall ndax boo xoolee njabootam yépp daf leen a jël taf ci boppam ku ci mel ni Cheikh Abdou Barham ku ci mel ni Oustaz Damto ku ci mel ni ku ci mel ni amul limite ba ci seen jiw moo laay Cheikh Moutarka ñii ñëpp ay kàngam leen ay kuy leen ci seen liggéey bu yaatu bu rafet boo xam ne am nañ ko ci tarixa bi kenn mënu koo natt ngir léegi bu mu rëy ak yaatu yaatu kon dëgg-dëgg bu ngeen toogee fii dinañ leen ñu dinañ leen ziara dinañ leen wàcce seen wàccuwaay dinañ wax ne barab bii seen barab la ndax Seyda yaa nday màgget ku nekk xam ne xolam bi ku ko xol ku ko xam doo ci fekk kenn ku maam Cheikh Fall te ku ko bëgg mooy bëgg nga bàyyi ku bëgg mooy bëgg nga sàmm daan ku bëgg mooy bëgg nga ñu waaye ku leen bëgg mooy bëgg nga yàlla ndax ñoom ñëpp jëm yàlla ji lañu yàlla jotaay bi yàlla yàlla nangu ko yàlla yàlla gërëm waaye di ndokkeel docteur Haj wul Cheikh Diagne wul li nga xam ne moo ubbi tey jotaay bi ñu bëri xamuñ ko nag sëti Baay la waaye sëti Mawlud Vall la Mawlud Vall ku ko xam xam ne koo xam ne ci xarab Ifriqiya bii naan na ci kaasi leer Cheikh Ahmad boobu yaa ngi ko naanee ci buntam ndax maamam Cheikh Mouhamadou Hafiz moo njëkk a bàyyi ko Kidya dem Fass moo njëkk a bàyyeekoo Chine yëpp dem Kidie ndax Kidie bu njëkk ba mooy Fass moom la ñu tuddee woon moo njëkk a ñëw ngir taataan ci leer gi nga xam ne yàlla may na loo Cheikh jox ko wérdu gis ci moom ne ambassadeur fayda la mu ne ko damaa bëgg nga toog ci man ñaari at. ndax wal waalidaat yow bay na awlaadahum na xawali kanbeen ah, nit kat yaay buy nàmpal doomam ku foog nga nàmpal ko at li ma bëgg a def ci yow foog nga fi ñaari at pour ma def ko ci yow Cheikh Mouhamadou Xaadul toog nekk ak Cheikh Seydi Cheikh Ahmad Tijaan radiyallaahu anhu ca kit at ba mu def ci moom li muy def ci moom mu jox ko lijaasa itlaaq Cheikh Ahmad Tijaan ku nekk xam ne ku fii roon ci tarixa bi bëri tool yi jox lijaasa islaam waaye joxoon na maamu Cheikh Mahamad Xaafis Chérif Gétté lijaasa islaam na ko boo demee nag charte bi mooy na nëbbatu bul feeñu na nëbbatu ba nekk ci la ko nekkoon di jàng jàngale ba benn bés euh, ku ñu wax Muxtaar Tennessee moo ko feeñu na ko damaa bëgg nga jox ma la nga la nga jëlee kii mu ne ko foofu jëlee woo fa lenn lu ñu téere yi gis jàng jàngale moo ko déedéet bii ci guddi gi xadir bi àndoon ak Moussa feeñu na ma dama naa nag ma jox ci kaasi leer yooyu nga xam ne jëlee na ko ca Fass muy tarixa bi mu ne ko jële woo fa dara dina but rek mu ne ko xam nga ne man lu may waxat ku am cër laaj yàlla fekk na ay xali safara ñu ci wetam mu ngi boyal furna bi jaataay mu jël loxoom dugal ko ci safara si da ko li yëpp ay xaraafaat la xam naa ne la nga dee moo ëpp solo fii solo lool lii nii ma bëggoon nga jox ma ci tariqa bi mu daal xam ne kat waarul xaq yàlla am da nga rafet mu daal nangu jox ko tariqa bi tariqa bi noonu la lawee ci biir Mauritanie bu Sénégal bu Gambie bu Mali ba tasaaroo ci rab bi fi ba loolu bu dee ba am yàlla ak maam moom docteur mi nga xam ne sëti bàyyi la waaye wax naan sëti Cheikh Mouhamadou Xaawlo ci ngir du loolu la nga xam ne bépp teraanga yi am tey yàlla mu jàllale ci ay maamam maamam haadi tamit bàyyi tuddee ko maa xawla mu bind ci moom lu mat juróom-ñeenti téeméeri leetar kenn amu ko ku dul maamam muy xaati yàlla nattu ko nag leetar yooyu yëpp réer affaire bi naqari ko lool mu ñëw ci bàyyi na ko li ma gën a métti sama àddina mooy leetar yi ma bind mu réer ko bàyyi na ko dinaa la ko taawilal ci benn lees dinaa fexe nga am loo ko muñ kooku mooy maamam dëgg-dëgg tey jotaay bi am na leer am na yokkute waajuram di suñ xarit di suñ soppe àndoon ak xalifa bi Cheikh Mouhamadou Mahi ca Soudan ba léegi mu fay des moom di tasaare fayda li nga xam ne seen maam ak seen bàyyi ñoo ko fi bàyyi woon damay faral di ne doy na ci karaama karaama yi nga xam ne yàlla dafa yi nga xam ne seen maam ñoo di xale xale yi nangul bàyyi karaamaate bi jë bëri na lool lu ko yàlla may ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëri na bëri na lool wax na ne yonent bi may na ko xam-xam may na ko alal may na ko lu ne fa minhu ataani al-ilmu wal faydu wal hudaa faqad fuqtu fi al-irfaani man kaana ya'lamu mun na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci laa jëlee xam-xam ci laa jëlee njub ci laa jëlee maarifatu billaahi ba képp ku xam yàlla rek maa la war a xam yàlla waaye ànd ak loolu yëpp baax na lool ndax wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may na ko bépp may bépp ngëneel boo xam ne ne rek may daf koy may jaamam rek wala daf koy may taalibeem wala soldaaram rek may na ko ko moom am na loo xam ne mënu ko wax sax maa laa abdour bi seen yi mënoo bil xajji yow man iidi bil xaybi mimina jihaaran ataani Moustapha bil manaam wa atxabani maa laa abuxu bi seen yi bi sahwin indi saa mu ne sa bésyaa cëmi na ca xëy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ci ay may may yoo xam ne maa daal wax bi si ko wax mukk ngir bëri bu mu bëri ma xam ah may yooyu bëri bu mu bëri gannaaw xajul ci àddina àllaaxira la xaj mooy bépp taalibeem boo xam ne aju nga ci moom wala taaluk nga ci moom bàyyi garanti na la fekkee na sa taalib wér na ndax mu ne dina fàttali ko bés penc yonent bi taxaw bu continuer ca nam nee woon mooy hunaka tadakkar yaa shafiu muqassiran asila waraamin fii ka yajdu wa yantaxu mata qumta wasta al anbiyaai mushafian hunaka ajdu bithana wa ulawiho mu ne ko rek des penc yow yonent bi salaa sa fàttalikul jàmm bi nga xam ne dafa gàttalu ci liggéey la hunaka tadakkar yaa shafiu muqassiran ki nga xam ne dafa taqsiir ci liggéey la may xaatir la waaye bàyyi kañ la taqsiir ci liggéey yonent bi sama ki nga xam ne jotaay bi day wane liggéeyam jotaay bële ca Gambia bërki démb day wane liggéeyam jotaay bële ca Soudan bërki démb day wane liggéeyam jotaay bële ca Nigéria bërki at ci démb day wane liggéeyam jotaay ca Caad jotaay ca fu ne ci àddina bi mu liggéey ko man tukkikat laa yaa nday mii tukkukat la dem naa ba dëkk bu ñuy wax Ferland yaakaar naa yaa nday xam nga ne foofu mooy aqsa Europa gannaawam amul benn dëkk bu nekk gannaawam mu ngi mel ni Sénégal gii rek gannaaw Sénégal amul beneen dëkk lu dul gannaaw nga dem ba Amérique goro gi boo fa àggee jeexal nga àddina waaye tamit Ferland maa ngi doon oo sama xarit bi foofu ma maa ngi fii nga xam ne sori naa lool te gàmmu ñaari fan ci des muy gàmmu nañ la maa ngi Finlande damaa jugee Sweden jël boto am ci douze heures de temps pour àgg Finlande Finlande boobu gën a mooy ne fekk naa fa daayira buy gàmmu du gàmmu ci moo la ay taalibi Baay may fàttaliku ne Baay la mu waxoon ca ne fépp lislaam àgg tariqa bi àgg fa faydam yii dina fa àgg mu ne hada bi manzilatul maadin indi lii dafay mel ni lu passé ci man jamono ñu koy wax jafe woon naa dégg lool waaye léegi neex naa dégg internet yi même ñu koy wane amul benn réew booy dem ci àddina bi ba Suisse ba Sweden ba fu ne yaa ngi koy gis ay daayira bàyyi ñuy gàmm ci Mawlana Cheikh Islam yaa seetaan yaa ndey màgget bi xam ko bu baax di ci liggéey bu yaatu di ci bay bay waaw rëy ndax am na sama jigéen sama xarit sama soppe ku ñu wax Seyda Kumba Dem muy dofu mbaay daa ko tarbiyal yaa def ci moom lu ngay def ci moom lu ngay def ci moom li bàyyi bëgg ci ay taalibeem yépp yaa ngi koy liggéey ñu nit koo xam ne koo gis xam ne na jëfe ci bàyyi man de loolu rek moo tax ma sopp la moo tax ma xam ne yow yaay kan ndax maa ngi yow mosuñoo dajee mosuñoo toog waaye toogal naa sa lim sa ak sa taxawaay ci fay ndax ku defar ku mel ni dafa bàyyi lan yooyu dafa am ne dëgg dëgg yaa ngi bay waaru lëy ba fan yi ñuy organiser gàmm boo xam ne gannaaw tërës bi ñoo ko war a dafi yaakaar naa di ngay ñëw insha allah ñu ngi lay yaakaar yaan yàlla yoon bi sa liggéey gën a taaru gën a rafet moo tax dëgg dëgg ñu ngi sant yàlla bu baax ci bu yàlla mayee bàyyi maa ngi doon léegi ne gis naa ne moom la fu bàyyi yàlla daf koo xëy si muqaddam yi bàyyi bàyyi gën la si nii tey laay doog a daje moom waaye yàgg na ma yàgg na ma laa tuddal yàgg na ma tudd say mbir ak nu nga bëggee bàyyi waaye tamit gis naa si réseaux sociaux say waxtaan ak sa dëgg ndax arab yi dañuy wax ne fekk leen ko olof waxal rek ñu xam la ndax boo waxee rek xam nañ sa dëgg ak sa mbëggee ak sa xidma ci Mawlana Cheikh Sama Dios képp ku roor rek foofu nga roy mbir mi secret bi du lenn lu dul liggéey ba ak dëgg ba pare xam xam looy wax yëfi du naxante ndax naxante dafay jeex lépp loo mën di wax te ko bu yàggee nit ñi dana waaye lépp looy wax te gëm ko nit ñi dina la topp kenn mënu ci dara ba ñu lay ñu li ma gën a neex ci jotaay bi mooy muqaddam luñ fi bëree ak luñ fi nekkee luñ ñu fi toogee ñoom ñëpp te loolu yëpp lu ko waral mooy yaa nday mi nga xam ne moo oote jotaay bi dafa mel ni ñaaxaanaay la tuddee fekkoon ne dafa am xaaj seen amaana ñu oo ñu si bëri du ñëw waaye ku ne xam ne jamono xat na nit boo demee ba ñeme koo invité rek wala nga ñeme ko tuddee programme wala nga ñeme koo rendre hommage rek amaat moom nga nga moom relation amaat euh, bu dëgër ndax koo amut ak moom relation ñemewu ko tuddee dara wala ñëwoo ak moom wala ñeme ko darajal dara waaye na koo bëgg na koo sopp da ngaa bëgg yi yaatu comme ñu bàyyi waxoon rek ñun suñ ànd gi ci yàlla la soxbatuna lillahi wa naaji minna yaaxu bi di aax yi suñ àndoo gi ci yàlla la képp ku mucc ci ñun na nga ba sa war mucc ne laa ufarriqu bayna abnaa il baar wala atbaa il baar amuñ ci man différence ci diggante taalibe yi ak sama diggante njaboot ak sama ñëpp ñooyam ci man ndax lu mu woote mooy umma bi ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne wa ummatu xasdi bihim an asuuqahum ila xadrati bari rahim ilahina li ma bëgg ci xeetu yonent bi la wax waxut li ma bëgg ci sax bi aw fi awlaad yi aw fi xawat yi waxut li ma bëgg ci samay taalibe wala li ma bëgg samay doom wala samay njaboot wala samay soxna wala samay doom déedéet waaye dafa wax wal ummatu qasdi bihimu an asuqahum ila xadratil bari rahim ilahina li ma bëgg ci taalibe yi li ma bëgg ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jëlee leen ci géej la dem ci géej la bu indi leen sa si gëm yàlla moo tax mu ne hunaaka tadakkaru yaa shafii'u muqassiran asira walamin fii kay jour wa yandaxu ko yonent bi sallallahu alayhi wa متى قمت وسط الأنبياء مشفعا هناك أجدو للثناء وغيره heure boo taxee bis benn ci di ràmm say xeet ndax ku nekk xam na ne bés penc kenn ku nekk yenentu boo yaakaaroon ci nga jëm yaakaaroon Adama dañuy daw yem ci yàlla Adama yaakaaroon yem ci yàlla Isa dañuy daw yem ci yàlla Isa ñu dem ci Adama Adama dafay joxe ngant na ah garab gi ni ma aayoon biir aljana na bu ma ko lekk man sob sob lu ba lekk ko ndax tey dina ma ci àtte wala dina ma ci àtte yaakaar nañu ci Yàlla Isaa ñu daw dem leen ah man kat liñ oote sama gannaaw ne yàlla laa doom yàlla ma ci àtte wala dina ma ci àtte joxe ñant yaakaar nañu ci Yàlla Ibrahim ñu daw jëm ci moom mu ne leen asnaam yi ma tojoon toj seeni borom ñu laaj man kan moo def lii ma ne leen yàlla ju mag fen boobu te mu tuddee ko fen xaw ma naa dén ci atte balu bashaat ñi nga yaakaar yéen si yàlla Yaxya Moussa kenn ku nekk rek jooy nga gànt waaye ba ñëwee si yéen si mu ne ana laha ana laha man maay borom shafaatul uzma mu ne kaay li ñu sama borom mu dem ci boromam bu waral sujud borom bi na ko tey bés isal tooba wa shafaatu shafa tey na ñaan ñu may la na ñaan ñu may la na ngay romb ñu romb la waaye tey du ko si sujud du ko si dara bàyyi mu ne hunaaka tazakkar yaa cheikh yow muqassaran asira waraamin fii ko yujdu wa yamtaxu mata qumta wasfa al anbiyaai wa shafian hunaaka ajdu li thana awla na garanti lii rek doy na yaakaar lii seede te mii mooy seede loolu bàyyi mu ne keroog nag laay jaayu di yuuxu tiim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mel ni jaam bu tiim sangam mel ni géwél bu tiim sangam di koy tagg tagg yi nga xam ne maa ko doon tagg jamono ji may dund dem naa ba feebar dem naa ba màgget ñu ne ma am nga ngàntal tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man leen du ma màgget mukk ci tagg yonent bi moom laay deeyaale moom laay feebaraale moom laay dëkkaale moo tax mu ne yowmal yaquluna laa taxul li suqmin wa fa umruka min shamsi dhahirati awdahu fa qultu shifa sukmin wuquuf bi baabihi an tibbi yugnini kama dalla yajrahu axruj lirraxaati wannaasu kulluhum yaruuxu wa yardu lilxabibi wa yaftaxu atruku leyla laysa bayni wa baynaha siwa leylatin mel ni bi daalika soxla ñu ne damaa feebar am na quatre-vingts am na soixante-quinze ans màgget nga aji nga lu ngay war a aji ziyaara ji nga lu ngay war a ziyaara ji am looñu bëggati looñu tëggati yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi nii am nga ngànt ak tagg ndax sa ngànt moo gën a leer jant jant lu muy leer leer leer sa ngànt moo ko gën a leer mu ne leen damaa bëgg rek ziyaara ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw ci buntam ndax képp ku taxaw ci buntu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nuyu ko malaaka yi dina ko wax diw sàngam ca dëkk sàngam ca barab sàngam mu lay ñëw doon la ko nuyoo waaye ku mel ni bàyyi yaakaar naa kenn ko représenté barab ba xam na ko miin na ko ndax wax na atey ko tisaan lu maasalan baari yoo rek ñaar fi yoon dikkal naa la juróom-ñeenti fukk benn yooyu yëpp dikkal la ko dem sallallahu alayhi wa boo ko dikkul gis na tamit loo xam mos ta tàqali ko ziyaara ji ndax heure bu nekk rek mu ngi julli Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi sant ay béyt ndax loolu la ci gis mboolem xayatam waxti wa saati saraftu li dikrihi salaatan wa madhan minhu xasitu jëlema samay waxtu samay saa yëpp jël naa ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir bëggee bëggeel waaye bu génn àddina sax ñu foog ne jeex na ba des si biir bi ci biir suuf si di leen tëxatil anwaaru am def ni jursati baqiitu bihi ahyaa li yawmi liqaayi bu demee ba suuf sama jëmm ji foog ne fi jeex na sax ma des ci biir suuf continuer di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne lu du yàqu ñu foog mu ne leen déedéet àllaaxira dëgg la kenn du fa jaamu yàlla kenn du fa julli kenn du fa oor kenn du fa def lenn waaye mu ne man damay sant yàlla ba si àllaaxira damay sant yàlla mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam idan tafatal haadi ilayya فإنه يغطي ظلامي نوره وحقائقه ويسمع مني ذكره ومدحه يفاخرني في الأنبياء ويعانقه أقول لهم صحبي صحبي أهل مودتي فقال ادخلوا صحب الخليل فسابقوا seede yàlla loolu rek dana yaakaar mbaam mii mën na ñoo seedal nañu ñu bëgg bàyyi leen mën na ñoo seedal nañu bëgg yéen ci sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne man ahyaa sunnati faqad ahabbanii wa man ahabbanii kaana ma'i fil janna képp ku dundal sama sunna yow moo bëgg la te képp ku ma bëgg maa ngi yow ngeen àjjana te wax nañ ne képp koo xam ne wala misqaala zarra min muhabbati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ci biir xol yow jësadu xaram na la naar fama baalu nag ñu bàyyi si lal yi bàyyi si nelaw bàyyi si lépp ngir wane si mbëggeel wala si cofeel xijaab bi nga xam ne ne nekk na si diggante ak asmaan mu ne nekk si xijaab mbaam bi béy na naaw béy na naaw mu nekk si yoon woo xam ne mooy yoonu gaaw yaatu ci saraat ñu jëm biir àjjana yàlla ñu yàlla dafa loolu ñu ngi ndokkeel soxna day màggee bu baax di koy félicité ci ndam li am na ko ak liggéey bi nga xam ne mu koy liggéey bàyyi ci Sénégal ak ci Sénégal yàlla xam na ne tey mos ñëwoon na leen waaw sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu ñu ko tàmbalee lu ñu ko tuuti waroon naa mën saa ma xam ne bu ma joxee microphone bi léegi bala ñoo ñëw ci benn bunt dina jeex bu ñëwoon ci awal jëndu jëran boobu askan bu sori wala njaari bàyyi tamit sallallahu alayhi wa mu ñuul wu leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam awul njur ma njëkk leen a leer foofu nañ ci xam foofu moom sallallahu alayhi wa sallam parce que suul li mooy cosaanal cosaan yi danañ jaare doom yi lam yazal mustaqim nuuru leeram kaa ñu ilaay cootu borom bi intiqaale ci tuuba la intiqaale ci gannaaw tuuba kaa ñu ilaay ci sallallahu alayhi wa sallam ci xasiidam bu ñuy wax Modou Basar mu ne leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy cosaanu bépp leer bépp leer rek ci leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bàyyi ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeram moom bàyyi ko ci leer yàlla mu ànd ndax wax ne ne ana min nuurillahi wal mu'minuuna min nuurihi man maa bàyyi ko ci leer yàlla bu mag la képp ku am leer rek ci sama leer la bàyyi ko moo tax mu ne kuntu nabiyyan xaalifan bi nubuwati wa alamu bayna maayi wa qiiri nekkoon naan yonantu ak sama yonantu wér nga penn booba adama mu ca barka kenn wala ko ko loolu bu xaj ci lu yi waaye ñu koy leb da leen jàmm am ñuy ñëpp di ziara allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima al-fatih lima sallallahu alaihi wa sallam jërëjëf jërëjëf akbar la